ok jaa ngeen jëf mbokk yi ñu seetaan ñu ngi leen di sant di leen gërëm gis ngeen kii ñu taxawal kii mooy Ouzin Keita kenn dootu ko laajte fii ci Sénégal raxas lay organiser foofa ca. Jet Café. foofa ca Jet Café. Eh, eh, Jet Café moo nekk noo faar à face euh, côté SD bi. di woo ay fansam ay xaritam ak ay mbokkam képp koo xamante ni yaa ngi bëggee Ouzin Keita mu ngi lay woo. foofa ca Nord Foire Jet kafe nga ñëw ànd ak moom raxas gannaaw bu mu jógee si sees toj si sees def fa dóom bàyyi fa coow lu rëy rëy rëy waaye nag suite bi Jet kafe la foofu ca Nord mais tey kan moo la fas yéene solal. ah ma fekk nii. fii mooy 6 point 9. ah 6 point moom moo na moom na la habillé moom na la ah, euh, de moom euh, Olof Ndiaye dana solo nga jël pay dem de xam naa euh, duma ñaw ma jël ndaare. macha ah, kenn du moom. gis nga ni ma mel. xool ma 6 ah, point 9 moo fi fii de mburu mi du xam xayma. kon boog na maa ngi jox ñëpp daan nuyu le premier. bu la sonn yàlla ay services yu garaaw. nit euh, dinañ xam ne euh, dinañ xam ne daal euh, mayonnaise daal kenn du ko dànk. mosal ñu mayonnaise kenn du ko dànk mosal ñu tuuti rek ci surprise yi micro baa ngoog. surprise bu ma ko xee xam nga olof Ndiaye ne ku ñëpp xam foofu du ma sa àgg ma ko xee doom sens le premier lépp na doon dëgg bu na sonn yàlla. man Ouzin Keita 6 point 9 xaana dama koy oo. Uima, tchau, valeu primeiro.